kilifa mooy ki lay guider kilifa mooy ki lay wan yoon kilifa mooy ki nga xam ni daf lay jàngal kilifa mooy ki nga xam ni li mu lay yilifee dafay nekk loo koy nawee donc kilifteef gi day ñëw naturelement tey suñu société à travers yi à travers aussi diggante waajur ak doom à travers diggante sëriñ ak taalibeem la majeure partie dañuy abusé ci seen kilifteef parce que mënuñu discerner lan mooy kilifa kilifteef ak emprise nit ñu bëri ñu ngi souffrir fekkee dañu nekk sous l'emprise de quelqu'un te nit mënoo nekk sous son emprise su fekkente ni jiitewu la dominé wu la looloo tax tey nga gis nit ñu bëri di rebelle wu nga dégg kilifa yi nga xam ne dañu amee ay problème problème comportementaux wala trouble psychologique nga dégg ñu naan ni xale yi nangootuñu ku leen yilif wala jigéen ñi nangootuñu ku leen yilif il faut que ñu xam discernement wu yàlla suñu borom lan la sant kilifa ak fan la ko yemale na li ma naan kilifteef absolu amul fenn yàlla bi mu nee nit ki nekkal sa kilifa njaboot wala nekkal sa kilifa euh, borom euh, sa kilifa soxna wala nit ki nga di ko jàngal parce que sëriñam nga dafa am ay limites yàlla daf ko encadré ba pare nag teg ay limite ne nit ki su egsee fii waratoo ko déggal ndax mu ngi abuser ci pouvoir yu yàlla tey nag euh, la majeure partie si kilifa yooyu dañuy abuser ci seen kilifteef teg seen njaboot wala seen soxna wala seen taalibi sous l'emprise lan mooy emprise mbokk yi nit ki soo ko bëggee dëgg nga ni da koy yilif danga ko bëggal jàmmam da nga koy libeere ndax ñu ñëpp dañu juddu libre dañu juddu ci liberté am liberté d'esprit liberté psychologique te emprise mbuumu njaam la du liberté taq xelu nit la te boo taqee xelu nit mooy nit ki am na domination psychologique te nit ki soo ko dominer psychologiquement parlant ceci di que dundam du neex te feebaru xel mën na ko yàpp te lan mooy domination psychologique mooy danga may defal man li ma bëgg dangay mel man ni ma bëgg doo mel ni la yàlla bindee doo mel ni yàlla bëgg ci yow mais ni ma bëgg man selon samay désir selon man li may woowee jabar ju baax yow soo melee noonu ma bëgg la soo melee noonu ma ni déggal nga ma selon sama ay déterminant critère ci jabar yow transformé wul nga mel noonu te li ci gën a piir mooy la majeure partie dañuy dem takk jigéen nga takk jigéen boo xam ne gis nga ko mu indépendant intelligent yaru ci millier boo xamante ni jigéen la boo xamante ni xam nga ni y a des choses que qu'elle pour pourra jamais accepter parce que lu tax parce que respect lay dund yow nga ñëw nga ni jigéen boobu effacer sa xel ak sa xalaat nekkal ignorant boo xam ne lu ma la wax bu ci teg baat bul demander la pourquoi tu exécutes et te pour pourtant même yàlla sax comporté wul ak noonu ñun de même yàlla suñu borom bi mu ñu bindee daf ñu xamal ni am ngeen droit bëgg diine ji wala ngeen bañ ko après vous récolter le conséquence mais yàlla forcé wuñu kon yo soo ñëwee nga ni sa soxna pour ma bëgg la dafa am noo war a mel. soo melul noonu duma la bëgg wala duma la respecté wala duma la teg fenn fii mooy kooku dominateur la dictateur la tey su fekkente ni yow waajur bi da nga naan sama doom dafa war a mel ni ma bëgg te ni nga bëgg sa bànneex baqee na nga ko teg ndax bu ñu ko xoolee ci diine daray diine nekku ca te da bëgg sa doom tey par exemple sa doom dafa extraverti nga ni ko na nekk introverti par force et pourtant yàlla daf ko sàkk pour mu nekk extraverti yow nga ni ko déedéet loolu ma ko nangu nga topp nit di ko xas di ko critiquer di ko rabaisser bëgg ne nit ki dafa dëgër bopp di ko humilier nga yaree ko ci noonu jël nit ki yàq àddinaam ba dootul am image bu positif ci boppam ñu yàq dynamique relationnelle yi il faut que ñu xam ni la majeure partie si ñiy comporté woo noonu de un dañu toxique mais aussi dañu amee benn dépendance affective dépendance affective mooy lan mooy ñoom dañuy soi-disant que dañuy yar seen njaboot wala dañ leen di sauver wala dañ leen di protéger wala dañ leen di aar fekk na dañuy satisfaire uniquement seen besoin parce que lépp ça tourne autour mooy si tu me fais ceci si tu me donnes cela soo melee nii soo ma defalee lii soo ma déggalee soo ma nii pour satisfaire seen ego parce que ñoom amour dañ koy jël transformer ko d'une manière boo xamante ni mooy melal ni ma bëgg defal ni ma bëgg awal fi ma bëgg ma bëgg la après ma tagg la après et après tey su fekkente ni yow boo taggee sa doom yàlla tagg ko nag pourtant yàlla daf ko bind mu libre et autonome am intelligence am droit ak liberté soo ko tegee ci yoon boo xam ne leer na ko ne yoon bii bu ci jëmee mooy yàlla am na droit bañ mhm. te du ci am la même façon jabar bi tam la même chaque fois sa jëkkër di abuser ci kiliftifam soit disant que sama jabar nga su ma la waxee bul seeti say mbokk da nga war a toog parce que soo ko defee yàlla rëbb la mani tegu ko fenn ndax diine dafa ne nañu jokk mbokk te ku dog mbokk yow mal xiyaam doo jéggi siraat looloo gën a wér yeneen xadis yu ñuy utiliser yëpp c'est faux dañ ko créer inventé ko kon à chaque fois nit di la def looloo xam ne soo ko xoolee xam ne lii su ma ko defee bu yàggee sama borom yedd ma danga fay teg kilifteefam topp yàlla suñu borom après suy crise mu crise suy dund mu dund mais yow tu fais li la yàlla digal te bul musa a sa bopp ndax nit bu la naan melal ni ma bëgg pour ma bëgg la soxla woo mbëggeelu kenn lu dul mbëggee yàlla suñu borom parce que tey am na ci waajur yoo xam ne nattu lañu am na ci jëkkër yoo xam ne nattu lañu am na ci sëriñ soi-disant ñi lay jàngal yoo xam ne ay nattu lañu naka la ñu nekkee ay nattu mooy lépp lu ñuy bëgg ci yow mooy li leen di neex ñoom la preuve en est que bis boo jëlee yoon bu leen neexul duñ la bëgg te loolu du bëri mbëggeel parce que vrai mbëggeel mu ngi commencé keroog bi nga xamante ni doomu aadama bi dalay bëgg yow ca na mel même soo wàccee yoon du tere mu di la wan mbëggeel ba pare nag di la woo ci yoon bu jub bi ak li nga xamante ni mooy li yàlla li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale mooy ci euh, bonne séance ak sagesse ak parce que nit ki lay wan mbaax di la wan respect di la wan ni même soo jéggee yoon je te respecte quand même doomu aadama nga même soo jéggee yoon dama la bëgg quand même parce que sama doom nga wala parce que sama jabar nga nit kooku le fait que nga comporté moom day rus sax dellu si waat ci yoon bu jub parce que day xam ni dëggantaan bëgg nga ko mais su fekkee nit heure bu jéggee yoon bu jub nga topp ko xas ko yuuxu ko saaga ko dàq ko traité ko comme du n'importe quoi day wane ni juste mosoo li nga bëgg juste mooy li mu lay procurer tey suñu wax dépendance affective nit ñi dañu yaakaar dépendance affective mooy ki nga xam ne dem nit ñi topp nit ñi bëgg ñu bëgg ko bëgg ñu topp ko bëgg tout le temps di defal nit ñi lu ñu bëgg du leen wax non mais dépendance affective aussi dafa am ci beneen sens ki nga xam ne dafay taxawu comme sauveur di wax ni moom dalay sauver dalay protéger dalay aar dalay teg ci yoon su fekkente ni tey eh, mu ngi jéem a wane tout le temps que ni moom moo mën a moo la mun a dimbali moo la mën a génne say problème taxaw presque place yàlla di la wax ne bu dul man ngay torox ah ah. bu dul moom moom mooy torox <laughs> parce que tey soo fa bàyyee moom moo dul am fi muy exercer domination te boobaa c'est lui qui va se sentir mal mais pas toi yow au contraire tu vas te libérer tu vas te sentir bien kon képp ku leen di yilif dem leen ngeen jàng seen diine parce que ñu bëri yàq nañ seen addina ci question de kilifteef waajur euh, jëkkër je ne sais pas quoi parce que ñun suñu suñu suñu réew mbirum kilifteef domination bu narcissique bu toxique la ñu jël rek teg ko ci digg kaw nit ñi rek bëgg koo exercer yàq àddina doomu aadama yi tey xale bi judd ci loolu yaru ci loolu bu amee jabar noonu la koy traité parce que noonu la gis papam traité ko yaayam xale bi nga xam ne aussi dañ ko yar ci domination euh, li nga xam ne tamit mooy confrontation de pouvoir chaque jour yaa ngi xëccoo pouvoir xale boobu su màggee bu dee jigéen noonu lay sëyee bu dee góor noonu lay sëyee après tey nga bëgg ne waaw euh, jigéen ñi ne sont plus soumises euh, les enfants aussi ne sont plus soumis nan la ñuy soumiser bu fekkente ni yéen waajur yi ngeen di yar seen doom ci domination ngeen di leen di yar li ma bëgg ngay def maay sa baay li ma bëgg ngay def li li nga war a ngay mel bëgg a xaat koor ak moom yar intelligence la doomu aadama dañ la ne éduquer ko kenn wala nga dressé ko te ñun dañuy dressé duñu éduquer animal la ñuy dressé mais nit da nga koy yar te yar xel la waxtaan la bu ngeen jàngee viu yonent bi saa sallam siratul nabi wooyi bu ngeen ko jàngee ba mu jeex du ngeen gis fu yonent bi saagaa nit wala fu mu xase ay soxnaam wala ay njabootam wala fu mu leen waxee lu leen naqari lépp ci bonne séance ci intelligence ci douceur moo tax yàlla suñu borom tagg ko ne ko su fekkoon ni du li nga xamante ni mooy li ma def ci yow yërmande ak douceur ak mbaax ak sages kon saxaaba yi duñ la bëgg mbëggeel pour mu soqali ko ci xolu doomu aadama mooy nit ki da nga koy may jàmm da nga koy bëggal jàmmam da nga koy jox autonomie totale maanaam sa doom muy sa jabar na am autonomie da nga koy dimbali à que moom autonomie financière autonomie euh, spirituelle autonomie physique autonomie dans tout sens mais nit ki tant que yaa ngi bëgg mu nekk sa dépendance tant que yaa ngi bëgg nit ki di jokk ci yow tant que yaa ngi bëgg nit ki ah nga koy dominer tant que yaa ngi bëgg aussi nit ki def li la neex kooku bëggoo autonomie parce que da ngay bëgg nit ki même su waree liggéey yow danga war a fexe valider ba pare mu soog a liggéey soo validé wul amul droit liggéey nit ki même su waree def àddinaam des chose yoo xam ne daf koy indil jàmm yow da ngay tout le temps nit kooku def yow selon yow say attente ak li nga bëgg maanaam mu lay satisfaire waaye nit kooku et après moom ay et cette personne là dans tout ça et moom dans tout ça dundam qu'est-ce qu'il en est bu deewee kan lay rendre compte il faut que ñu xam ni ngay waajur ngay jëkkër ngay ko mën a doon cause nga rek ci dundu doomu aadama te cause boobu nga doon da nga ko war a rafetal da nga ko war a teg ci yoon sama vidéo bi nag xam naa du neex ñu bëri te ñu bëri duñ ko déglu bu mu àgg waaye ànd ak lu mën a xew comme ni ma waxee chaque jour damay tibb fii metti rek ma teg ko ci kaw table ji ñu nekk ci position de faiblesse ci situation yii nañu defaru ñi nekk ci position de force yaakaar doomu aadama yi say jaam lañu ba tax na tey le fait ma nekk sa yaay wala sa papa sa kilifa moo war a tax tey ma jël sa dund gi rek ni ko di ko tàyyi nu ma neexee amoo ci benn droit te en général kilifa yi gën a bëgg domination wala jëkkër yi gën a bëgg domination seen njaboot duñ leen déggal parce que ñoom déggaluñu yàlla te boo déggalul